di gërëm euh, ñëpp di sant ñëpp ci weeru weeru sell bi di weeru koor tàmbali nañ ko senegal euh, barki démb tey jullit yëpp war nañu wax alhamdulilah rabbil alamin euh, julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di képp koo xam ne kilifa diine la di woo ndaw yi jigéen ñi képp yeewoo Sénégal ba bitim réew ñu leen ndokkeel si weer bu bees bi di weeru koor tey nag ñu ko jëmale si mbirum eh, social chronique bu bi mbirum social lan mooy social boo nee social am na le moo eh, société gën na fa jëmale ko si askan bi eh, askan boo xam ni am na ñoo xam ni sax amuñu bu ñu ndogee muy tàndarma muy leen leen jumtuwaay yoo xam ni lañ ko mën a ndoge di woo askanu suñu weeru koor weer bu sell la euh, bërëbu foyekaay yi dañ ko war a teg fële di jàmm yàlla lu mu war am na ñoo xam ne bu ñu wooree ñun ñuy sant Ndiaye ñu sant Diop ñu sant Sénégal dañuy faral di laxatu euh, lekk ba suur naan ba màndi naan ah, soxna si ma ne dama woor ba ñëw di nax waa kër gi loolu ay reetaan la ay reetaan ñu weeru koor weer bu sell la ñun ñëpp ko war a def euh, jaamu yàlla daf lay yokk te du la wàññi dara léeg-léeg gis nit jàdde restaurant lekk ba suur naan boisson euh, lekk yàpp ba pare giix géex dellu kër gi di masqué wu naan dafa wartu loolu boppam lay nax ma yàlla kenn mënu ko nax yàlla dafa ne fekkee da nga tawat am ay gàllankoor kooku mën nga bañ a woor te social bi may wax ni tey lu am solo la tey boo xoolee miskin yaa fii di dund ak ñun di yeewoo ñun euh, ñoom soxla nañu yenn dimbali xanaa di woo ñi nga xam nag am nañu ay moyens ñu gestu néew doole yi loolu loolu mooy koor te koor euh, jàppalante la. te koor dafa nekk loo xam ni ku koy faral di def rek ngay dimbali doomu aadama yi da ngay gën di yokk mais nga yore million yore milliard di tëdd daal te jàppale doomu aadama yi mel ni weeru koor weer bu sell bi ma ne war nga xoolaat bu baax sa bopp ak sa koor boo xoolee jamono yooyu ci sallallahu alayhi wa sallam dañ daan dimbalante ku mel ni Muhammad daan jàppale néew doole yi moom wax na ko sax si ay si ay kàddoom ne jullit ñun suñu biir war nañ di yéente lu baax di defante lu loolu mooy l'islam te loolu mooy weeru koor euh, social bi nag euh, boo xoolee yenn jumaa yi yenn jàkk yi léeg-léeg euh, ñu teg fa ay ndogu ndogu boo xam ne jëmale ko si doomu adama yi miskin yi ba si néew doole yi war leen gestu amuñu lu ñu ndogoo loolu mooy loo xam ni dafa bokk si social te bokk ci société te social boobu tant que yaa koy def rek doo ko rëccu da gën di avancer euh, di jëm kanam loolu la ñuy wax euh, dimbalante li tubaab naan l'union fait la force boole mooy doole di woo aussi kilifa diine yi euh, yore taalibe yi ñu gëstu leen tamit am nañu am na taalibe yoo xam ni amuñu yenn moyen xanaa di woo chef religieux yi ñoom tamit ñu jàppale leen. Euh, danañu nekk si ay dog-dog nekk si ay gàllankoor loolu tant que ñu koy def rek dafay gën a avancer l'islam gën a jox doole gëdd di naan diggante jullit yi loolu mooy social social nekk na loo xam ni tant que ñu ngi jàppale suñu biir rek doo gis benn jiixi jaaxa ak benn lënt-lënt si biir askan ñépp lay waxal partout dans le monde tey boo demee tey en Arabie Saoudite nga dem tey dans certains pays arabes dañuy génnee ay ay euh, euh, suukaru koor dañu génne ay euh, mburu koor jël ay ndimbal ay millions def ko si ay doomu adama ba Sénégal bi am na naam mais dañ koy gunne di ko wasaare si réew mi loolu mooy diine lislaam te loolu mooy weeru koor weeru koor ma wantuwaat dañu gën a topp suñu borom di julli di dem si jàkk yi jumaa yi di déglu xutba yi di déglu waratikat yi loolu dinañu amal njëriñ te dinañu amal importance bu am solo euh, dem jumaa di déglu ay waraat yi day gën a yokk sa diine yokk sa lislaam loolu la yàlla santaane loolu yonent bi santaane sallallahu alayhi wa sallam askanu suñu gaal nañu gën a góorgóorlu euh, si weeru koor bi euh, ñiy def conférence si bërëb yi ñu gën a daan xafuwaat askan bi gën a ñaaxaat ni suñu ñu delluwaat si delluwaat si téere delluwaat si diine lislaam delluwaat si alxuraan yokk ndimbal si biir bi te loolu mooy réew te koom-koom boobu tey képp ko am ba xam yàlla jox na la ay daraja war nga gestu néew doole tey daal loolu moo doon tey euh, mooy chronique bi mooy ñoon tey jëmale ko si mbirum koor euh, mbirum social euh, nañ jàppalante suñu biir buñ ko defee réew mi la gën a jëm kanam l'islam gën jëm kanam te suñu jaamu yàlla yàlla na ko nangu mbokk yi digal ñëpp di ñaan yàlla jàmm si réew mi mbas mi yàlla na ko yàlla teggi te yàlla am na ko te mën na ko nañ gën a góorgóorlu respect les mesures barrières si biir weeru koor bi raxas suñuy loxo respecté euh, suñu suñu suñu suñu mesures barrières ba mu ko def loolu du ñu am benn gàllankoor mbokk yi di gërëm ñëpp di sant ñëpp Salam Vision mi ngi ñaan ñëpp euh, kooru jàmm kooru natange kooru réussite jënd